fii nag yàlla ngi ciy wax suratul maun makka la wàcci ñenn genn wàll ga makka la wàcci su ko defee ci aasi ibnu wail genn wàll ga wàcci madina ci abdullah ibnu ubay ibnu salul lu ca mën a am yàlla ngi ciy nettali yonantu bi sallallahu alayhi wa aasi mii nga xam ne dafa amoon ab jirim ñu ne abu jahlin bàyyam dee bàyyee ko jirim baak alal bu jirim ba ñëwee di ko laaj alalam rek mu bamax ko lekk alal ja kon nag aaya ci abu jahlin mais bi umumi lafzi laa bi xusuusi sabab képp kuñ bàyyee alali jirim nga koy profité di ko lekk aaya gi dal na ci sa kaw te mooy bu la yàlla jéggalut bàyyi woo loola ba dee tuuboo ko moom borom borom alali jirim di jéggal la nga dem safara ndax inna lazina yaakuluuna amwaala yataama xulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna sairan kon nag ku yàlla bàyyi ti jihim toppatoo ko xalal ja mu gën di yokku Aysatu laajoon na ko yonent bi ne ko alal li alal jirim yi ñu war di leen yar seen bàyyi bàyyi ñu alal ji koy toppatoo ndax dañ cay génnee asaka mu ne ko waaw waaw waaye bu ngeen ko tegee benn place di ca génnee asaka asaka lekk ko day mujj jeex da ngeen ciy jéem a commerce su bu koy asaka di ca lekk muy am bonofice ba cay juddu su boobaa mën ngaa def ak jirim bi lu ñu tuddee xiraat ci fuqaaw yi mooy jirim bi am na alal waaye amul tànk yow am nga tànk waaye amewoo alal nga jël alal jim donnoo ci baayam di ca commerce ubbi ci magasin su ko defee boo demee ba weer wi dee ba at mi jeex wala juróom-benn weer nga def le lii jirim baa ko moom lii magasin bee ko moom lii yow ma cay liggéey yaa ko moom sa xàq la lislaam bañu ko su ko defee nag su demee ba déwén ñu war caa génnee asaka la ñu war a génne asaka yëpp nga génnee ko ca waaye di millions la ko bàyyam bàyyee nga bàyyi ko ci banque bi at mu jot ñu génnee ca million bu ne juróomi junne bu yàggee balaa màgg alal ja jeex waaye dafa bëgg nga cay commerce waaye boo cay commerce nag yàlla nee na na nga ca teg na nga ci na nga ko teg ci maandu bul ca profité pour mën a am accès pour lekk ci alal ja waaye na nga ci commerce jéem ko koo toppatooxal waaye bul ca commerce pour jéem koo toppatool sa bopp du jeex am na fi ñoo xam ne tey seen euh, waajur yi dee nañ bàyyi fi nit bàyyi fi alal ñu jox ko seen rakki baay ya ñu jox ko seen nijaay ya ñu profité dem takk ca seet maa ngi dem jënd ca oto baa ngi tabax ci ay kër di ko profité lekk rek balaa jërim ba màgg dara dut ca desati yàlla nee na loola ngay lekk muy neex ñu la koy ay ganaar ngaa yëgut waaye safara la na fii bu fi butunihim naaran fekk wasa yaslawna sairan kon nañ ragal yàlla ci alalu jirim yi yonentu fu muy limee bàkkaar yu mag yi balaa jeex mu tudd ca ak lu maalal yatim fa muy limee muubiqaat yi bàkkaar yi alak boromam balaa jeex mu boole ca lekk alalu jirim kon moom ci muubiqaat yi la bokk waaye tamit ci kabaa'ir yi la bokk moom lekk alalu jirim su ko defee tamit bokk na ci muxbitaat yi yoo xam ne dafay sippi sa sa yu baax yi nga njëkkoon a am lekk alalu jirim ci la bokk nga julli mu sippeeku nga xoor mu sippeeku nga aj màkk mu sippeeku nga foo ne la koy dencal fekk dara desatu fa ndax li ngay jëfandikoo kon moom lay saar wi wax nag mu jaar ci benn xéeféer waaye ku melokaanoo melokaan yi ba tey rek yaa ngi ci biir aaya moo tax yàlla di wax yonentu bi ne ko ara ayta xanaa xéemu nga àll fii nguur sa nga xam ne yu kasi bu dana weddi bi diini ci bisa fay ba te mooy asim nu waa fa zalika kookale fi mooy nguur sa nga xam ne yeddoo dana ba max al yatiima jirim bi bu ko laajee xalam rek mu ba max ko tëj bunt bi wala yaxuddu du ñaax boppam waxuma la keneen alaata taamil miskiin ci lexel miskiin ñam ci lexele ci leele ñam ci miskiin kenn mënut a tax maanaam mu lexel miskiin ñam kooku mooy genn wàll gi wàcc màkka loolu moo tax ñu ne saare loolu mooy genn wàll gi wàcc màkka genn wàll gi wàcc madina nag mooy fa waynu lil musallina moo tax boo demee ci tafsiru idaahul quran li ma waxoon keroog rek boo jëlee benn aaya kese ta mu amee ay mbok nga firi ko rek moom kenn jëmale ko ci ay nit da nga leen di agressé ci turu alquran te fekk alquran agressé wut kenn waaye da ngaa war a seet yam ànd ak mbooloo yam ànd ak mbokkam ya benn bu ci nekk nga mën a xam ban mooy teguwaayam waaye jël benn benn hadis moom kenn kese bëgg caa waaraate danga nga dugal nit ñi safara te fekk ñoo yow yow ma leen cee dugal yaa leen cee jiitu wala nga jël benn aayab alquran kese bëgg cee waar nit ña dana bëri koo jegeel safara te fekk yàgg koo gën a jege moo tax boo demee tafsir wax ne boo nag foo wéynu lil musallina rek xamoo moom kenn moo ànd da nga dugal ñu bari safara kon nit ñi bàyyi julli te yoo xamoo li muy tekki fekk fa waylun lil musallina jim wax allazi allazina hum maanaam an salatihim saahuuna moo ko firi allazina hum an salatihim saahuuna tamit allazina hum yuraa'uuna wa yamna'uuna al maa'uuna moo ko firi kon ñetti aaya lañ bu njëkk bi bu ñaareel bee ko firi bu ñaareel bi bu ñetteel bi moo ko firi yow nag boo jëloon bu njëkk bi rek na fa woon lil musallina waaye ñu xurwa ca safara ñeel na ñu julli firee ko noona ku la wax ne yàlla loolu la wax ana mbokkam ya su boobaa tamit da nga jéem a agressé nit ñi te fekk alquran du agressé kenn kon nag yooyu dafa jar a bàyyi xel fekk yàlla mi ngi ci namu waa ji ñuy tudd Abdullah ibnu Ubay am munaafiq la yonentu dana kàbbaar mu kàbbaar ca gannaawam mu rukoo mu rukoo mu sujjóot mu sujjóot fekk julliwut parce que yàlla taxul julliwut ngir yàlla dafay julli ngir nañ ko di ngistal pour bëgg ñu gis ko te bu ko wóoree ne mbooloo maa ngi nii kenn gisu ko rek mu arrière du ca nekk buñ ko généré gis rek mu feeñ waaw bu yàlla waxee ku mel noona yow meloo noona nga bëgg koo mel ñu melut noona dafay métti kon nag ku mel noona ku ne tamit yaa ngi ci koo xam ne ni bu la nit ñi gisee nga julli bu la kenn gisul doo julli ndax mbooloo mel noo xam ne buñ ne ay wa taxawal jul doo ñemee rocceeku waaye yàlla xam na ne yaa ngi ci biir mboolem waaye nekkoo ca léeg mu ñemee yàlla sax nga jiital ko te yàlla xam na ne duy julli nga jiital ko muy tiitaroo jàng saar wu gudd rafetal ko lool rukkoo ya mat su jóot ya mat nga ne waajee mën a jaamu yàlla fekk la yàlla xam doy na yooyu tamit baaxut kon euh, loolu lay wax si nii ci ubay euh, euh, ma abdulaay ibnu ubay munaafiq bu mag boobu nga xam ne waxoon naa la ko kenn du bi ci mbaax bañ na ko lu ne def na ko yonent bi ba mu demee xam ne day dee mu ne na ko yonent bi may mbubbam yonent bi yónnee ko mbubbu mu ne ko waxuma mii njéel laa yemi laa wax ba muy jiital ci yaramam yi yonent bi mbaax gaag oyof ga mu joxaat ko ba saxaaba yi mer ne ko lu tax ko jox sa mbub mi mu ne ah, du ko jariñ dara ba ko ko joxee dee mu ne ñu ne eh, yonent bi tamit war koo julle di ko jullee ba alquran ne ko waroo ko woon a jullee wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan Umar ibn Xattaab ne ko doo ko fi jullee ak la ca xew lépp waaye ànd ak loolu lépp jëriñu ko dara moo tax mu ne fa waylun xur wa ca safara lil musallina ñeel na way bayi julli ñi kenn du ko firee ñuy julli lil musallina ñeel na ñay bay ñuy bàyyi julli ñi ñuy bayi julli ñooy ñan mu ne alladina mooy ña nga xam ne hum ñoom saahuuna way sàggan lañ an salaati wali seen julli sàggan wali sa julli kay rek ñooñaay ñan mu ne alladina mooy nga xam ne hum ñoom yuraa una dañuy ngistal rek wa yam na una ñuy tere maa una njafañ-njafañ maaxun mooy luñ mën a jariñoo jëmm ja ca njariñ la te jëmm ja des fa képp ku koy tere sa morom moromam jullit mbaa sa morom moromam nil rek day tekki ne ku siis nga day tekki ne ku soxor nga soo julli tamit melokaanoo jullit nekkul ci yow booba nag bi ko saxaaba yi laajee yonent bi ko jooja jamono mu na leen mooy sémmañ bu la sa moromam nit abbee sémmañ abal ko bu la abalee jaasi abal ko bu la abbee kaw diir abal ko bu la abbee bool yuñ koy yekkee abal ko loolu mooy maawun ci seen jooja jamono kaw diir yaak cunwaar yaak bool yaak sémmañ yaak jaasiya loola mën ngaa jariñoo njariñ la ba pare jëmm ja des fa lii bu la ko sa morom moom nit abbee waaye léegi nag maawun yóbbuwal na sareer ya nga ca àll ba yóbbuwal na sa moromam jullit ngeen dëkk mu àbb la fas ci dugg na ca ki ñëw àbb la oto soxla bu taxaw dugg na ca ki la àbbu jakarta bi am lu muy doxi dugg na ca lépp loo xam ne nit da koy soxla ngir ki soxlaam yu teew rek mu ñëw àbb la ko su boobaa loolu si la dugg waaye yooyu yëpp nag buñ la ko àbbee yow miñ ko abal goreel sàmm ko nu raw nooy sàmmee sa alal soo ca gàttañ loo mbaa nga sàggan ba jalgati am ca ca sa gàttañ loo ko waral bul fa nekk naan ko la ma abaloon nii dañuy wax ne demal nga jëndi nga fay ko suñ ko sàccee nag wala nga yow gàttañ loolu la la waree def nga ci nag kon dootoo ko warlooti ndax dañ koy dugal ci buntab amaanatu ci mazhabu mal loolu la gëm ak saafeyu abu hanifa ak ñi de ñoom ñun dañ da ngaa war a fay rek ku jël ak abbu su boobaa da war a fay bu ca sànkoo ñoom lool lañ gëm te nag jël abbu ñu abal la ko nga négliger ko xam nga léeg-léeg nit ki abal lay bool nga bàyyi ko fa ba mu réer foo ko teg nit ki abal la ay cunwaar wala mu abal la ay kaw yooyu toggee nga bàyyi ko fa ba mu réer foo ko teg Eh, léeg-léeg tamit nit ki abal la sareet nga am goreet yi pneu ba kërëwee nga ñëw jëlee ko noonu teg jox ko ko wala mu jox la fas sonn ca doo ko jox mu lekk ci ngooñ doo ko jox dugub yooyu yëpp tamit lislaam bëgg ko kon boo abbee la nga abbee rek bu jotee nga def ko ca dañoo bëgg tamit li nga abbu nang ko abbee nga def ko ca su fekkee tey da ngaa abbu ne abal leen ma fas week sareet bi ma dem place sàngam wala oto beeg wala welo bi place ba nga waxoon nga ëppal distance ba waaye dara xewut dara yàquwut charia day wax ne lam ca yokk nañ ko xayma mu nekkul lu nga fay ko boromam yaa waxoon ne foo jëm damay àbb foo jëm nga ne tëngéej nga fay yegg mbuur nañ ma diggante ba mbuur ak maanaam kii tëngéej ñaata la lu yaas ba nga fay ko bu dara yàquwut mais nag bu dara yàqoo dañuy tànnaloo boromam ci jàpp lu yaas wala jàpp xayma ja loolu mooy fiqhu maali loolu la gëm kon ñaareel nag yàlla day nattu nit loo abbu boo ca ëppee liñ ko abbee rek yàlla nattu la ca kenn mënu ca dara kon bu buñ la abalee goreel la nga abbee rek bu jotee nga def ko ca bu jeexee nga delloo ko ànd ak ñëw baalu borom ak ñaanal ko yàlla loolu la lislaam bëgg waaye abbu dara tamit léeg-léeg nit ñi abbu dara ci ay bool ay nangam far maanaam nationalité ko abbu ko mu yàgg fa rek nga jël moom ko far kii de bool la boo xam ne dañoo seet borom ba na gisuñu ko lii la yonent bi wax mu ne ko waa bii bu tegoon sama kaw ma teg ko ci bu tegoon sama doom ma teg ko ci kon kii faw ma dagg loxo ba dagg loxo ba ay waaye nag tabaarkàlla li xew léegi kenn xamul lan la kenn xamul lan la su ko defee kon nag euh, boo abbee li mooy loolu mooy loolu mooy atteeb abbu ga ak delloo ga buñ la abalee na nga gore jigéen ñi bu ngeen abbatee takkaay delloo leen ko bu fekkee dafa sànku ci sa gàttañlu seetal na xayma ja toll nga dem jël ko delloo ko boromam moom mel ni ma yooye nga ko joxoon fa Fatima mi doomu yonantu bi abboon na sayyidatuna Xafsatu benn bagaan min ko téye xaw kii rek bagaan ba rëcc toj yonantu bi ne ko ansa sa bos mu ne ko sama bos a ngi nii mu ne ko demal nga fay ko ko demal nga delloo ko ko mu delloo ko ko kon tamit bu ngeen abbee paan dee leen delloo bu ngeen abbee siwa yi dee leen delloo bu ngeen abbee ay takkaay dee leen delloo léegi nit ñaa ngi bëgg abu abbu bay abbu dàll ñenn ñaa ngay abbu bay abbu ay portable waaye jamono ji tamit able portable óorut man nga abal portable nit ke jël ca bippe ca wala mu def ca lu ca defuwut yow borom portable bi ko abonné rek yow lay yoon di teg ci sa kaw jamono ji nit ñi dañoo ñeme yàlla lu ne day xew jël jël portable ab jàmbur bippe ca numéro ab kilifa la ca xew xew ca fooy mujj tribunal rek kon kenn ku ci nekk portable daal sa loxo sa poos rek waaye di ko abal nit na damay woote damay wuyu yeeg nangam jamono ji laaja ko nga toll jamono joo xam ne kenn du xóolu jamono te lu leen cay xew kon nit di jël di jël di jël jël lu am solo la ci jamono ji kon aaya jàngoog ak abbu léegi mi ngi dugg ci suratul kawsar su doon ki toftaleeg alquran mi ngi wàcc gannaaw suratul aadiyaati suratul kawsar mooy saar wi gën a gàtt ci alquran buñ la laajee saar wi gën a gàtt ci alquran mooy suratul kawsar ñetti aaya la soo jëlee saar wi gën a gudd ci alquran mooy suratul baqara juróomi xisib la saar wi nag di suratul kawsar yàllaay wax yonantu bi xéewal gu rëy gum ko defal xéewal gu rëy gu ñu tuddee kawsar boo demee dañ na kawsar alam la ñenn ña ne wasfu la ñi ne melo la ñi ne tur la moo tax firéem kawsar rek moom kenn ni ko borom xam-xame ulamaaw tafsir yi firee ëpp na ñeen fukki firi kawsar lii la ñii ne lii la ñii ne lii la ba mu ëpp fukki ñeen fukki firi soo jëlee ikrama dafa ne kawsar mooy nubuwatu nubuwatu gi yàlla jox yonent bi nga jël ku ñu tuddee xasan mu ne mooy quraan xal quraan la nga jël xasan ibnu fadli mu ne maanaam mooy tafsirul quraan firi mi ñu firi xal quraan jëlee ca yonent ba ca saxaaba ya ca taabiina ya ba ca borom xam ku mel ni maanaam Aboubacar maanaam ibnu Iyaas moom dafa ne Kawsar mooy saxaabaam yu bari yu tedd yi yim daan wax ne asxaabi kan nujuumi bi ayyihi iqtadaytum ihtadaytum ibnu Kaysaan dafa ne Kawsar mooy islaam ñii ne Kawsar mooy yëkkati gi yàlla yëkkati turu yonentu bi lëkkale ko turam ci warafanaa laka zikraka ñii ne mooy nuurul qalbi ñii ne mooy shafaatul kubra gi ko yàllay jagleel ëllëg kon nun nga koy toppee ñii ne lii la ñii lii la ñii ne lii la ba muy ñeen fukk yu wuutee waaye nag boo jëlee kawsar ci baat bi mooy tekki xiw wu bëri rek xiw woo xam ne dafa bëree bëree bëree bëri ba kenn lu ko lim lu kenn mënta lim ko mooy kawsar waaye nag boo ko jëlee ci firéem yonantu bi Aysatu moo ko koy laaj ne ko waaw kawsar mooy lan mu ne ko ak dex la ci aljana yàlla moo ma ko dëxal xam na riwaaya wax dafa ne ataaniihi laahu fii dafa ne waadaniihi laahu yàlla dëxal na ma ko bi dafa na jox na ma ko mu ne ko nag kaas yañ koy naanee kawsar moo tolloog biddiwu asamaan yi ndaw kaas yu bari kaas yañ koy naanee moo tolloog li mu biddiw yi mu ne tamit ci beneen riwaaya kawsar moo gën a weex meew moo gën a neex lem ku ca naan nag dootoo marati ku ca xas naan dootoo marati boo demee ci riwaayaat yi nag pour dëppale ko dafay am yoo xam riwaayaat yi wane ne dañ cay naan avant ñuy jéggi siraat am yuy wane ne dañ naan gannaaw buñ jéggee siraat euh, soo demee nag imaamu Qaradaawi ni mu ko ni mu ko toftalee ni mu ko méngalee dafa ne daal démontable la léegi-léegi dañ koy dañ koy monter fii euh, avant ñuy jéggi siraat ñi naan ca buñ demee ba jéggi siraat ñi démonter ko yóbbuwaat ko ca foofa ca aljanna ñi naan ca moo tax nekkul benn place day nekk fii ba ci kanam yàlla démonter ko yóbbuwaat ko beneen place waaye da nga laa kulli xaal ca naan dootoo amoon na benn góoru nitu yàlla dafa gént rek naan ca ñu ko daan tuddee maam Omar Sakho dafa gént benn bis rek ñu nandal ko kawsar moom nee na ba ni mu génn àdduna maratut ku ko jox ndox dana la rus rek ne nii tiimale ko gémmañam ba nga koo gis mu lay gis rek ba nga foog ne naan na mu delloo la pot ba kon dégg boo xam ne nit a gént rek naan ca moom maratut kon ku ca naan foo jëm yàlla nañu ci yàlla nandal yàlla nañu ci yàlla nandal kawsar moomu nag li tax yàlla wàccee ko wax ko yonantu bi sababu nusool bi mooy doomam moo génn àdduna di xaasum nga xam ne mooy taawam bu góor ba mu génnee àdduna nag xaasi ibnu waa'il nag kontaan ca ak mboog kàngaami xéeféeri sanaadiidu quraysin ya ne ay yonantu jarta noono benn doom ju góor la xamoon génn na àdduna kii kay buy génn àdduna rek mbiram yem fa ndax ko xamul ndono la tuddee ko ne ab tar la nit ñi dañoo soxor wax loola yonantu bi yàlla ne ko inaa ataynaaka al kawsar naa la jox borom xam-xam yu bëri ñoo xam ne yëpp sa doom lañ naa la jox ay sahaba yu bëri ñëpp sa doom lañ naa la jox ay taabiina yu bëri say doom lañ danaa la jox maanaam waliyu yàlla yu dul jeexati sa xeet yu say doom lañ danaa fi bàyyi alquran mu des fi ñu koy jàng ña koy jàng say doom lañ yonantu bi mooy bàyyu ñëpp di bàyyu xeet wi xeet wi yëpp doomam lañ ko ju kooku jirimut kon kooku tumurankewut lim nekk bàyyi xeet wee tax ba mu àdduna soxnaam ya kenn donnuwut leen ndax soxnaam ya suñuy yaay lañ te nit mënta donnu yaayam yonentu rek moo génn àdduna soxnaam kenn donnuwut leen xoolal ba muy génn àdduna saydatuna Aïcha fukki at la am ak juróom-ñett booba dundam mi ngi ci xayu mu dem a dem a dem dund dund dund ba am juróom-benn fukki at ak juróom-benn ci dundam mosta toog ak benn góor ci kaw lal loolu tax ndax kat euh, soxnaam yi ñooy yaay jullit ñi. nit mënta takk yaayam kon looloo tax kon kon kooka kay wax dëgg yàlla kon bàyyi ñëpp la kon bu génnee àdduna benn doomam rek lim dese ci ay doom du jeex waaye xoolal tamit ki ko doon wax abtar moom jàpp ne am na ay doom yu dul jeex xoolal lim am ci njaboot ni mu waaye kenn xamul leen ku la mën a limal doomi Aasi ibnu Waayil amut waaye xoolal yonent bi tey tabaarakallaahu surafaaw yi foo dem fekk leen ñi nekk seen leer di leeral kaw suuf te ñoom ñëpp mu soqee ko ci leer ak Seydina Muhammad yàlla moo tax bëri le amul solo barkeel moo am solo xoolal yonent bi dafa barkeel juróom ñaari bant la ko yàlla dénk juróom ñaari bant ye ñeent ña jigéen lañ saydatuna Zeynabu saydatuna Roqiyatu saydatuna Umm Kulthum saydatuna Fatima góor ña mooy Qasum Abdullahi Ibrahim Abdullahi mii ak Qasum mii ak Ibrahima mii dañoo génn àdduna njëkk ñuy mësuur takkuñ sax soxna waxuma la bay am doom ñett ñële di sayyidatuna Zeynabu Ruqiyatu Umu soom amuñ ngirte lu continuer am na ki ñu am doom ñu amaat doom waaye mujjuñ continuer dafa mujj ngirte ga am foofa kenn rek moo ci am doom yu continuer ba tey meññ faa yi ba koo dàq mu yóbbu la ci moom mooy sayyidatuna Fatima kon dama ne bari le barkeel la ko gën yonent bi dafa barkeel loolu la ko yàlla ko kaay ma wax la li ma la jox joxagut ko ko sax waaye yàlla lu mu dële ak lu mu def ba pare ñoo xem yàlla du la wax mukk danaa la jox ngay topp ca gannaawam di daw jox ma jox ma xam na koo xam ne ni bu la danaa la jox dese nga beneen coono da nga topp ca gannaawam di daw da nga ñaan da nga ñaanlu ne li ma wax yàlla na ko def waaye yàlla moom bu ne danaa def rek moom jàppal ne def na ba pare moom lay wax si nii moo tax mu ne inaa naka ñun yàlla atay naaka jox nañ la joxagut ko ko waaye li taxaquqi wuquuhi mu ne innaa naka ñun yàlla ataynaaka jox nañ la alkawsara kawsar léegi nag fa salli nanga sax dàkk ci julli li rabbika ngir sa borom am na kuy julli te yàlla taxul yow del julli te yàlla tax wan xar na nga loj li rabbika ngir sa borom del rendi te yàlla tax am na kuy rendi te yàlla taxul inna sha'ni aka naka aji bañ sa huwa moom dong al abtaru mooy ki njadde njadd abtar mooy gàtt boo xam ne geen ba dafa dagg loolu la ñuy wax ab tar waaye nag lu mu ci namm koo xam ne ngirteem du luy continuer du doo xam amu jeexital ci ay ci ay doom ay ngirteel tay mag ñu baax ñu fi yaakaar ñëpp seen ngirte yaa ngi fi koo ci lim lim ne maanaam mi ngi soqee koo ci diw boo jëlee Cheikh na Ahmad Tidiane ba tey yaa ngi koy limal ñu fi nekk maam Abdul Qadir Jaylaani yaa ngi koy limal ñu fi ne maam Limaamu Laay yaa ngi koy limal ñu fi ne maam Alaaji Abdoulaye Niass maam Serigne Touba Seydil Haaji Malick koo ci lim ne diw sët la ci moom mbaa sët sëtaat la ci moom mais Aasi ibnu waaye li mi doon ayibal yonent bi amul loola huwal abtar moo tax yàlla xasru ko ci moom su ko defee kon nag ne ko julli ta sa borom tax am na ko julli te yàlla taxut waaye tamit li gën a jafe nag mooy rendi te yàlla tax wan xar li rabbika tey nag bëri na ñuy rendi te yàlla taxut ñee ngi rendi di tuural ñee ngi rendi géej gi ñee ngi rendi lu kenn xamut waaye wan xar li rabbika sooy rendeb gàtt na yàlla tax bu fi nekk tamit di saraxe saraxe goo xam na ni ba nga koy saraxee ab gàtt di ko rendi wëndeel nga ko sa bopp bi juróom-ñaari yoon door koo wëtal gàtt bi day dee lool ki ko ki ko sarax bu bopp ba woyofee day dee sax na ñoo kam ne beneen laa sarax ab gàtt fu ne dañ ko fa dugal dañ ko wëndeel a wëndeel a wëndeel fu ne ñu jaar ko kon yàlla ne nañuy rendi te yàlla tax bu ñu rendi dara te fekk yàlla taxul kon inna shani'aka huwal abtar kon loolu mooy suratul kawsar su ko defee saar wi tegu ci mooy qul yaa ayyuhal na yàlla wax yonantu bi ne ko fekk lii sababu nu sol bi xéeféer yi def délégation ñëw ne ko nga yori yàlla ñu yori yàlla dëgg-dëgg dafa xaw metti léegi daal nañ bokk ñun ñëpp jaamu suñ yàlla ji ren ba déwén ci ëllëg sa ñun ñëpp ñu bokk jaamu sa yàlla ji ba ren di déwén ñu comparé ñaari at yi bu ñu ci gën a jig bu ci gën a neex ñu xam ne kii moo ko yor ñu bàyyi koo ko fekk kale waxi dof la lii lañ wax ci yonantu bi su ko defee nag yonantu bi nag yàlla ne ko tontul ma xéeféer yi xéeféer yooyu nag ngay tontu mooy xam na ñu nekk seen biir ñu nama ma tuub waaye ñu nga xabe du tuub mukk laa wax nag ñoo moom wax ji nga xamal leen ne li nga xam ne mooy li teew si man duma jaamu yàlla ji ngeen di jaamu ci lu teew parewu leen tamit pour jaamu yàlla ji may jaamu ci lu teew ci liy ñëw si tamit man du ma jaamu yàlla ji ngeen jaamu ci luy ñëw si ba fay àddunay tukki yéen ñii xam ne du ngeen tuub ba yowmal qiyaam parewu leen tamit ngir jaamu yàlla ji may jaamu ci luy teew si li ci luy ñëw si moo tax kon euh, dañoo jàpp ne takkaraar la ndax la abudu ma taabuduna wala antum abiduna ma abudu dafay niru takkaraar waaye benn bu ci nekk la muy firi ca jamono ja ak moromam duhuñ benn benn bi day tegtale luy luy luy jublu si benn bi tegtale luy ñëw ci kanam xam nga dàq ñaar la mën ngaa dàq li teew fekk dàqoo li ci kanam du ko def bokkut ak du ma ko def mukk loolu duñ benn waaye boo ne du ko def mën nañ caa déggee ne mën naa xam nga def ko ci luy ñëw waaye doo ko def ci lu teew rek waaye boo ne loolu ngay ni may proposé pour wax ko du ko def mukk kooku moom jeex na ba ba yax adduna bi tukki dootu ko defati yàlla na loolu la wax yonent bi ne ko waxaal ak ñooñu ci loolu ne yàlla ji ngay jaamu ñoom pare wuñ ngir jaamu ko léegi gannaaw a ah, gannaaw ëllëg tamit suba ëllëg tamit bàyyi wuñ xel ngir jaamu ji ko loolu lay wax si ni ci xuyal kaafiruna moo tax mu ne qul waxal yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne yaa ayyuhal kaafiruna yéen xeetu xéeféer yi la abudu duma jaamu ci li teew maa taabuduna yàlla yi nga xam ne yéen a koy jaamu ci lu teew wala antum déet yéen tamit aabiduna ngeen di jaamu ci lu teew maa aabudu yàlla ji may jaamu ci lu teew wala ana déet man aabidun may aji jaamu ci luy jublu si maa abattum li ngeen li ngeen doon jaamu yàlla ji doon jaamu ci lu paase wala antum déet yéen aabiduna ngeen di jaamu ci luy jublu si maa la nga xam ne aabudu maa ngi koy jaamu lakkum aji nekk la ñaal leen diinukum seen caaxaan yi tu tuddee diine wali aji nekk la ñaal ma diine diine lislaam ju wér ji diine duhun ñaar waaye moo tax leen làkkum diinukum jàpp leen seen diin jàpp seen diina déeréet inna diina indallahi lislaam diine benn rek la mooy lislaam kon lee ñoo ko tuddee seen bopp tuddee ko diine waaye fekk ay caaxaan la moo tax mën a làkkum diinukum jàpp leen seen caaxaan yi ngeen tuddee diine walii ngeen bàyyi maag sama diina ju leer ji muy inna diina indallahi lislaam iza jaa nasrullahi mooy suratul fathi yàlla nga koy wax nag di wax yonent bi ne ko yaa ngi ci sàbbaal dëgg la waaye gën koo yokk yaa ngi ci jéggalul sa borom sa xeet wi waaye gën koo yokk bis boo demee ba ma defal la nasru arab yëpp nga not leen fatxu màkka am nga hubbi màkka waaye waaye su boobaa nag la nga doon ñaan lépp yàlla defal na la ko kon nag yow daal jaaxaanal tey sant yàlla te di ko te di ko sàbbaal ndax li nga bëggoon moo la ko defal ku yàlla dimbale ba toroxal la say noon te loolu laal defal yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi ñu ne ba muy génn ak àdduna presque arab yëpp wommatu nañ dugg ci lislaam dugg nañ ci lislaam ba muy dem nag bàyyi fi Aboubacar rek mu doxal mission ba ñaari at yaag weer ya Omar ibn ñëw def fi fukki at ak dara commencé nag toj dëkk yi ba l'islam di dugg si Afrique yi suñu Afrique yi dema dem Ousmane ibn Affan ak noona yooyu yëpp nag l'islam gën di tasaaroo yàlla ne bu ñu xeggee fii nag na ngeen sax dàkk di sàbbal seen borom ci xéewal gu réy gi mu leen defal kon tey fu mu ne ni hegg nañ fa lislaam nekk na waxambaane woo xam ne wu dëgër a dëgër dëgër la ma ngay waaxu ci juróomi continent yi ci àdduna bi yëpp kenn ñi mun koo tàppaas buñ ko buñ ko ñemee tappaas rek ci suñu yaafus la waaye nit ñu war a mel suñ ko meloon kenn du kenn du kenn du kenn du tàppaas lislaam waaye nag ñoo mel nuñ war mel ba tax tamit tey ku ñu wër toon yab yab ñu kon su boobaa nag bu ñu bëggee dindi yabeel ga nañ defaraat suñ toogaay sensé suñ comportement ak suñ melokaan waaye ki ñu jox li gën te mënoo fexe ba gën seetal sa bopp jox nañ ñu li gën kon buñ gënu rek ci ñun la moom lay wax si nii nag fatxu màkkataag la ca xewan wax noon nañ ci lu bari euh, ca Tuuba ak Abbas ga ba muy gàddaay yonent bi dajeeg moom ne ko foo jëm mu ne ko may gàd may gàddaay mu ne ko déedéet yaay kii mu mujj gàddaay comme ni ma nekkee mu ak yonent yi ndax kat laa hijrata ba'dal fathi ndax fathu mooy mooy mooy munaa su ko defee nag euh, la ca xew mu yóbbu Abu Sufyaan ba mu tuub jébbalu ci yonantu bi yonantu bi ñam setti woon ne bu ñu leen fekkee ci ridoy kaa ga nañ leen rey muy fukk ak ñeent waxoon nañ ko waxoon na la tamit nam terelee Abu Sufyaan ndax dafa bëgg daraja ku duggu këram rek mu ci nga ak doole ja yonantu bi amoon ci seen kanam ñoom ñëpp sukk ci kanamam ñun mu ne leen waaw lu ngeen foog ne moom laa leen di def ñoo ngi ne ko yow de mbokk mu baax nga di doomi mbokk mu baax mu ne tey ma wax leen la yusufa waxoon doomi baayam ya aqulu ma qaala axi yusuf la tasriba alaykum al yawma yaxfirullahu lakum kon kooku mooy yonantu bi mooy koo xamee ne nii bu jekkoo du jekkali waaye bu jekkoo dafay jéggale li ëpp ci ñun nag buñ jekkoo jekkali moo tax jekku jekkali du ngóor a waaye jekku jéggale piir mooy ngóor a jekku ay kàddu yu ñaaw yuñ la wax nga mën a tontu noppi mbaa nga gis ko ci journaux yi mën a tontu noppi baa nga mën a dem ci média yi am occasion wax nga noppi ne bàyyi naa koog yàlla ñu def la loo xam ne am nga doole am pouvoir mën a fayu nga ne jéggale naa ko ngir yàlla ndax doole yàllaa ko am te daf ma koo dénk dama cee war a yërëme yàlla ne na kooka mooy ki baax waaye jekku jekkali baaxul de waa ji daf may fontoo tey ma xam ne duhuma moromam li muy jaay lépp tey ma jënd ko te la muy jaay dara baaxu ci yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel <laughs> jar bàyyi xel léegi nag saar wi danga koy xaddam fa sabbix ngay commencé boo ko bëggee dégg dangay wax ne fa sabbix na nga sax dàkk ci sa baal bi hamdi rabbika mbir mu ngay làmboo sant sa borom wastaxfiru saxal dàkk ci jéggalu ko innahu naka moom yàlla kaana naka jekk tawaaba nangu waxaa koon tuub la kañ nga war a def lii nag isaa jaa boo xamee ne dikk na nasrullaay ndimbalal yàlla wal fatxu ak fatxu màkka raa de ko defe waraa a ayta nga gis naasa nit ña yadduqulu na ñuy tàbbi fi diini ci fi diin laay ci diine yàlla ji afwaajan mbir mu ñu def ay kuréel waaye waaye bis boo defee lii nag fa sabi bis maanaam bis mi rabbika fa sabi bi hamdi rabbika kon su boobaa nag jot na sa saxal dàkk ci sabaal gu làmboog sant sa borom jéggalul ko sa xeet yoo xam nga bàkkaar bis boo demee ba nasrulaa yi ñëw nasrulaa yi ñëw na sa noon yëpp mokk nañ tey yaa doon takki xare xare ji xare jeex na ci yow waaye tamit mbooloo ma doon contre ñëpp ñëw nañ ñaara fi newoon ndax ñëw moom ñaara koy waral benn xelu ñëw wala xelu ñëw rek waaye yonentu xoote ñëw mënta ñàkk ñaar rek a fi mën a xam xelu mbaa xelu yow nag yàlla dimbale na la ñi xelu ñëpp xelu nañ ñëw ña fi nekkoon tamit ñàkk xel yëpp mujj nañ xelu ñëw kon nag su boobaa fa sabbi bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaba kenn du sayyiduna muhammad saar wi ci laay tëje muy maanaam sóoratul sóoratul masad su ko defee saar la woow mi ngi wàcc ci abi lahab bàyyi taxu yonantu la kon bokk taxut a bokk jege taxut a jege baay moom mii ak baayu yonantu bi abdallah ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn yaay waaye ànd ak lii lépp moo gënoon a bañ yonantu bi ci kaw suuf moo tax bañ koy rey sax dafa wax ne bala maa dee may leen ma ba bàttali ñaari baat lan la mu ne fii may jógee ko ci adduna bi ñi fi nekk ñëpp Muhammad laa ci gën a bañ fa ma jëm xaw ma nu mel ak ña ma fay fekk waaye ñi ma fay fekk ñëpp moom laa ci gën a bañ la ma doon bàttali jeex na baax na man man ngeen maamu jekkali ànd ak lii lépp bëggoon na yonentu bi nag keroog ba yonentu bi juddoo arab dañoo bëgg doom ju góor yonentu bi juddu ah jaamam ba su way batu su way batu muy jaariyatoom ba ñëw ne ko ah sa rakk jade di abdalaayi soxna sam bàyyi woon mu nekk jigéen mucc na ba muccee doom ja góor la ba mu nekkee góor man mii nàmpal naa ko mu ne ko xibaar bi ma jox maa ci bég a ba bis ni ki tey goreel naa la yàlla du neenal jëf moo tax bisu gàmm gu jot moom moo ma bégoon ci juddoog yonantu bi ba goreel ci ak jaamam guddee gàmm gu jot dañ koy goreel ci safara di ballal soow ci ay baaraamam mu koy macc ngir li ko ab jébéeram joxe woon mu bég ca moo tax dafa génn àdduna rakkam gis ko muy Abbas ne ko koto nu sa borom def ak yow mu ne xaw na maa rey ci mbugal luy sa xalaat ci xeeti mbugal teg na ma ko waaye nag bisab gàmmu dee bis bu ñëwee dañ may génne ci tuusu safara di balal soow ci sama baaraam yi foo ko jëlee mu ne bég gi ma ci bëggoon ba goreel ci sama jaam looloo waral maanaam yàlla goreel ma ci safara kon yaakaar naa buñ ne gàmmu bi daala kenn waru koo def abi lahab d'accordu ci ma ne abi lahab du ki d'accord moom kooku moom bu sañoon bis yëpp di gàmmu kon mawlidun xafafa al azaba an il ammi abi lahabin man daawu saqaaw kooku mooy kon baax na su ko defee kon nag abi lahab moomu lay wax moom lay yàlla di wax ne tabat yàlla na perte tabat yàlla na torox yaddaa abi lahab jëmmi abi lahab waaye wa taba torox na sax arab day waxee loolu waaye diw yàlla na dee dee na sax waaye diw yàlla na xalaku waaye xalaku na sax diw yàlla na torox waaye torox na sax moo tax tabat gu njëkk ji maanaa ñaan la su ko defee moo tax nag geneen gën a door a nekk xabar ya nga ne kon nag bu ne yaddaa abi lahab ñaari loxo ya waaye jëmm ji yëpp la ca namu waaye ñaari loxo dafa bokk ci li gën a tedd ci nit lu bari mën nga koo ñàkk di ko defal sa bopp waaye bis boo ñàkkee loxo looñu lay defati dañ la koy defal ku ñàkk loxo fooy sëlmoo kon nag loxo li mu li muy jariñ ci dund doomu aadama néew na yeneen cër yu koy jariñ moo tax yàlla jël ñaari loxo ya rek waaye ñaari loxo ya tamit jëmu ja yëpp la ca namu mooy tuddee lépp rek turu lenn moo tax mu ne kon nag yàlla na abi lahab xalku waay waaye xalku na sax arab day waxee loolu ba liy njëkkee wàcc nag muy bàkku ne waaye nu may ala ko li ma xam ci alal fa foogoon ne alal mooy très torox fekk na kuy xeewoo ci ñaar fukkeeli étage te moo gën a torox alal terewut a torox kon alal terewut a torox ñàkk alal terewut a tedd mbir mi newut ca loola alal lu la génn la la lay toroxal la lay tax nga tedd mbaa nga torox ci sa jëmm ji lay ne ñu installé ko du ca génn waaye alal lu la génn la te mooy àndandoor bi gën a goree xadi mooy àndandoor boo xam ne bala laa jëriñ dafa teqalikoog yow moom feeg yéen a ngi du la jëriñ tey boo fi xiifoon bay bëgg a dee yore 10 000 francs ci sa poos bi feeg ma ngi ca ba xiif bi ray la boo bëggee maanaam mu jëriñ la rek na teqalikoo génn sa poos bi nga ne ko demal jëndal ma ceeb kon teqalikoo nañ mooy kon àndandoo bi gën a goreedi bala laa jëriñ rek teqali koog yow waaye feeg mi ngi ci yow du la jëriñ dara moo tax tamit boo dee mooy njëkk a teqali koog yow yaa ci sonnoon tabax kër gi mu nekk etaas nga jënd 4 kaat bi def lu nekk ah dee na nag kër gi ne fen laa demut du ma la gunge de booy dem demal yow kenn yaay génn ah ñi génnee la ñi wàccee la lal bi nga jëndoon yàlla bu mu nekk lalu dugul yi rëy yooya ñu jékki-jékki xenoo la gée wàccee la lal ba ki gën a am xel moo ñëw ne waay da ngeen koy bàyyi ci lal bi ah gaa yi ñëw wàccee la lal ba gis montor ba ba doon kii ñu ñu tekki montor ba portable ba ñu ñëw nangu ko bëri na sa dee gi ki ko yëgee mi ngi ko yëgee ci sa portable man waaye dama ko woo ba sonn mënu ma ko mënu ko gaañu na di moo tax nga jot ma xam nga portable gore wut de billaahi bu gore woon boo deexee mu dee montor bu gore woon boo taxawee mu taxaw waaye ngay taxaw muy continuer dox rek midi jot mu sone une jot mu sone portable ba dee muy continuer dem rek su ko defee ñi ñi wàccee la sa lal bi yóbbu la ca wana wa tekki montor ba tekki maanaam portable ba sa yére yére nga soloon ak nu mën a mel ñu summi ko jël benn darab sàngee la ko dem nga ba ci kanam xajatoo ci kër gaa yi ne morgo ba ñu dem ca morgo ba ku ñëw ana waa gi defar nañ ko kenn ku ne ana néew bi defaraguñ ko rek moom daal balaa gaa yi xam jàmm nga dem ca biir bàmmeel ya rek xajatoo ca morgo ba dugal nañ la ca oto nga fi yoroon mu rafet lool nga ne kenn du ci duggu sama man kenn rek tey ci oto yi soble ya lay dugal oto ya doon sëf soble ya ci la ñuy dugal néew yi su ko defee tamit yóbbu la ca xajatoo ci kër gi xajatoo ci dëkk bi dañuy mujj génneel dëkk ba foo jëm ca armeel ya su boobaa kon nag maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab to di naan sama alal jee nangam ak nangam da ngaa xamul rek alal terewut a torox ñàkk alal terewut a tedd yàlla ne nga da jaar safara soo xam ne ma ngay tàkk du ma ci xem yàgg sa jabar ji mooy kenn kuy dund ku yàlla annoncé ne ko safara nga jëm ci aw saar waxuma yow mi yàgg sa jabar ndax mbon ngoo mosoon a nekk sa jabar moo la ciy dimbale ummu jamil di mbokkam abi sufyaan te daan xaar kaar ba guddi jot mu jël footit mi jël dëg yi teg maanaam sànni ko ci yoon wi yonantu bi jaar pour bëgg mu mu jam ko yàlla tuddee ko xamaalatul xatab xamaalatul xatab mooy kii taxan ay dëg taxaari dëg yi yu mel noona ak i ay di ko sànni ci mbedd mi yonent bi jaar pour bëgg maanaam mu jam ko ndaw ku soxor waaye koo xamee ni day gis lu ci gannaaw waxuma li ci kanamam fu koy dégg di jamee kuy dégg di muslu kooka dégg du ko jam bu ko dégg gisee moo koy muslu suuf sa muy dox sama ngay muslu ci moom bu fekkee mu dëgër ma nga nooy bu fekkee mu nooy ma nga dëgër ne su ma nekkee sama melokaan bi léegi tey ma fakkastal ko dem safara kooka loo ci sa kaw lay tàbbi moom mii bañ na yonent bi fexeel mu ne ah fexeel naa ko nu ne mënumaa fexe ba am ko waaye tay ma am ko damay feebar feebarlu li ma koy bañ bañ mënta tànqam lu kenn gas kàmb gu mag ci buntu këram lal ab basaam toog ne leen dem leen wax Muhammad ne ko bàyyi ma feebar mu ñëw seet si ma yonentu beeg mbaax ga ndey ndeysaan mu jënd ay sëritéem ñëw topp ko def lam def ñëw nag ne ko maa ngi lay seet si di ah Jibril ne ko lii ñi lal fii de kambu la de teggi ko de mu teggi ko teggi gu rafet daa di ñëw papa mbaa yaa ngi te ne ñaanal ko lamb poosam lam nekk ci ay sërite jox ko ko mu ruusa ruusa ruusa ruus ba fàtte kàmb ga ne ca mëlëb dugg ci biir di koy gunge far dugg ca pax ma <laughs> ko fa bëggee génnee du sotti luñ def sottiwut ci la mujj yooxu ne ki ma gasal kàmb gii li ma koy bañ bañ bu ma génneewul mu nekk sama bàmmeel yonent bi yurundu ko mu xool ko rek mu jël pax mi ne ko papa jàppal mu jàpp mu henn ko génne ko ca pax ma ndax walaa yahiqu makru say illa bi kon lu jar a bàyyi xel la moo tax sama borom ne tabbat yàlla na torox yaddaa abi lahab jëmmi abi lahab jo yëpp wa tabba torox na sax ma ax naa jëriñut anu walis ko maaluhu ja wa maa kasaba ak lim fàggu ci ay jaam du ko jëriñ dara li wér ta daal sa yas laa xal si njaar naaran safara zaata lahabin bay borom ak jalañ wamraatuhu ak jabaram ja jan jabar mu ne xamaalatul xatabi kay xenuhaa koon matt ak dég di ko teg ca yoon wa boo ko defee xamaalatu xamaalatal xatabi mbir mu muy nekk taxanaa koon dég ya di ko teg ca yoonu yonantu ba fii jiidihaa aji nekk la ca loo sam wa xablun buum min masadin goo xam ne dañ koy raw ca buumi safara ya ñu ne xablun min masad àdduna la ñuy ne àdduna safara la dafa daan dem ca àll ba di taxan sayi dég di ko takk ci ak buum bu ñëwee di ko tasaare ci yoonu yonantu bi bis nag na mu jëlee say wa noona takk ko noona rek ne ma ngi koy takk rek buum gam doon takkee matt ma takkuwu ci xam ga xerande ko mu dee boo lëggee bu demee safara tamit buumu yàlla ye seen ya lañuy takk ci dox ga di ko diri bu bëggee génn rek ñu xëccaat ko mu ñëw ci digg safara kon hablun min masadin kon lii mooy saaru tabat ci leen nam mu ngi mel ni nag foofu la ñuy yeewal insha allahu rabbi